bokk yaakaar ndax dafa xàjjarloo fii ci Vélingara amul benn werante ginnaaw bi ñu dégloo ñenn si ñoom si bile ndaje ñu jël kàddu ñëpp daal di insister si li nga xam ne mooy unité maanaam déggoo docteur Aliou balde gis ne moo waral mu daal di dajale lu ëpp si maire yu département bu Vélingara. bu ñu defee réunion bi fële Saare Coly Sallé euh, gis nañu tey ñi fi tey. ëpp nañ ñu nekkoon euh, Saare Coly aussi bien en terme euh, de simple militant ou sympathisant mais aussi en terme d'élu muy maire yi muy au conseiller donc prochaine réunion bi bu ñu ko defee yaakaar nañ ne mun nañ amaat encore ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu ñu daal jógee fu ne ay élus ko wala sax ay simple militant ñuy firndeel seen cofeel ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Kandiaye lu ëpp si askan wi yeewoo si département bu Vélingara daal dinañu xamle seen engagement liggéey si wetu Amadou Ba. donc dynamique bi ñu lancé nii. ñun ñoo gën a am intérêt pour que suñu euh, candidat remporté donc raison pour laquelle du ñu toog du ñu du ñu nelaw dañuy taxaw ba mobiliser le maximum pour que suñu candidat bi jàll dès premier tour. unité maanaam manko si la ñëpp woote ci bi ndaje docteur aliyu balde mi ko sabab am si yaakaar lool te di ci tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo jot a beddeeku